ka élection yi ju bëri nee nañu comme yéen da ngeen dox ci wàllum politique su Macky Sall jàppalewu ko ñeneen ñi ne Macky Sall da doon euh, soutenir ñi nga xamante ne ñoom ñooy waa Pastef waaw loolu day jur na coow moom waaw loolu coow loolu mm. jolli na ci réseaux sociaux yi mm. jolli na ci les chroniques euh, médiatiques yi mm. say naataango di def et cetera waaye gisaguma fenn une voix autorisée de la paire ou de Benno Bokk Yaakaar qui s'est

waaw Amadou Ba day wax dëgg yàlla def na lu mu mën nag wax dëgg yàlla <laughs> parce que eh. ku góorgóorlu ku mësul bokk ci compétition électorale mm-hmm. salaamaaleykum rek nga am 35 pour cent mm-hmm. ah, loolu performance la ba mm-hmm. defee naa sax bu ñu appliquer la loi sur le le chef de l'opposition normalement bu fekkee euh, mooy ki arrivé deuxième lors de la précédente présidentielle kon moom la war a doon mu war a nekk le chef de l'opposition waaye loolu nag kenn mënu koo forcer opposition amu fi waaw dama ne bu fekkee ñoom ils veulent se préparer pour mhm. des reconquêtes futures. Mhm. Parce qu'il est probable que l'échéance mhm. euh, législative, euh, avant son terme normal. C'est-à-dire il est fort probable que nous avons des élections législatives anticipées. mané, ah en tant que nouveau chef de l'opposition daal di am bi euh, on ne peut pas être plus réaliste que le roi. D'accord. L'une euh, foncier